ay immigré yu bari seen xel day nekk ci ñibbisi fii ci Sénégal waaye lu bari dafa des fii ci réew mi ngir seen nekkin Mawa Ndiaye njiitu mbootaay Sénégal yi nekk Catalan di ko méttitlu des gens am na ñoo xamante ne ñoom seen ndaw yépp dañ ko liggéeyee ca l'Europe te fu mu toll nii daan nañu retraité waaye foofu rek la ñu nekk lu ñu mën a wax mooy lu tax ñoom ñuy dellu ca l'Europe ndaxte lu ñu ñuy fayeeku ci seen pension ay salaire yu mag la fii ci Sénégal waaye wax ji yépp du loolu ndaxte fii dañuy am jafe-jafe faju fii ngir seeraay yi. ils ont payé leur sécurité sociale les a ngir lu ne mel daa di jeex coordination des associations sénégalaises de catalane ak diaspora développement éducation migration daa di daje ak yenn kilifa dëkk bi waxtaan. membre du conseil social. ñoom la ñu daal di dajek tey ji ngir ñu mën a liggéey bu baax ndaxte ku wax migration wax lënkale waaye ak décentralisation rawatina projet yoo xamante ni ay mbootaay ñoom ñooy cotiser ngir daal di koy def seeni dëkk wala seen réew. le financement qu'il cherche c'est dina tax diggante acteur yi sekk wàllu migration gën a rawatina waxtu bu ñu war a tabb seen député. lu ñu bëgg mooy communication. communication bi gën dox ci suñu diggante ay dina tax ñi gën a mën a liggéeyandoo waaye weccante ay xalaat. et de part ak gën a jàppale immigré yi ngir seen nekkin bitim réew ak fii ci réew mi bokk na li sabab bi lee ndaje ñu doon fa waxtaanee wàllu diaspora ci anam bu mu war a taxawee ci yenn bànkaasu réew mi.